internet Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar oh, ni ñu koy baaxee rek di amalee euh, saa su di <laughs> fii la ci Sunugal 24 xam ngeen ne nag tabarkalla 100 pour cent wolof fii lay amee tey euh, fii lay comme ni ma koy defee rek euh, di dugg ci gox yi ah, di seet ñi nga xamante ni déggatuñu wolof ma di leen nax <laughs> nax bi mooy nax bi mooy xam nga lan mooy baatu tubaab <laughs> boo waxee tubaab doo gañe boo waxee wolof nga gañe léegi dama leen di nax di leen làkk tubaab ndax ñuy wax tubaab ayca nii rek wolof dañuy daal di dugg nag bi ñu ngi file nga xamante moo di Liberté 6 xool tey kan mooy am chance daal di gañe tabarkàlla béy di laa àndal sama caméraman bu ñaawul bi waay nag ñëw fekk fii maa ngi xaar ba nga ja <laughs> ñëw fekk fii sama njaatige Ahmed Sall lañ koy wax mi ngi fii ci Liberté 6 ah di jaay ay jaaroog maanaam ay accessoire daal yooyu lay jaay léegi nag Amet Amet jox ma mbuus bi ma xool teraanga yi hmm? ay waay béy di bàyyil yi <laughs> ayca béy di teraanga jee ngi nii ba tey 100 ah, pour cent wolof képp ku nga xamante ni rek wax nga ak man ba noppi te waxoo benn baatu tubaab ah, dama lay daal di may yëre bu rafet bi yére góor bi nga daal di ko sañse waaye ba tey noonu laa ànd ak yéen rek ah, man laa teral ci yëre jigéen bi nga xamante ni moom laa indaale ànd ak Ndindy Couture bu loolu weesoo am naa fi tamit ay yeneen buuñaa ngir bëgg ngeen dégg seen làkk rek man dama baax ana booy <laughs> ayca boo Ah, bay dik li nga su ma la ko mayee da ngay dem dibitëri la mbote reer ba suur te doo fay dara ñu lakkal la yàpp nga reer ba suur waaye ba tey bon bi su ma la ko mayee da dem ci tailleur bi yóbbu sa yére mu ñawal la te doo fay dara kon xam nga ne damaa ànd ak ay taranga ay ca nii rek laa ànd ak yéen ci 100 pour cent wolof ba tey di leen fàttali ne maa ngi fii ci Liberté 6 ñëw seet si ñi nga xamante ni moo di jaaykat yi ak ñi doxantu ci marché bi mais mbokkantonot yi comme ni ma leen ko waxee rek 100 euh, pour cent wolof euh, nii rek lay demee léegi nag am naa kenn ku ñuy wax Amet Amet noo def maa ngi sant bu baax dégg nga li ma wax fi ma jaaraat ci ah, bëggoon naa ko déggaat nag waaw question réponse lay dégg ma la bu ma la laajee danga mu gaaw waaw bu yéexee perte la neexee boo waxee baatu tubaab tamit perte nga. ba tey. Euh, am na bu question bu nekk ci biir bu ma la ko laajee boo trouvé ma taral la ma may la ci yére yi d' accord. man après laa la koy laaj. waaw ah. léegi li ma wax yëpp leer na. leer wax tamit doo ko waxaat doo ne waaw ba pare ne waawaat di répété waat mooy d' accord. mun naa nekk noo def. maa ngi alhamdulilah. Euh, foo dëkk ci Sénégal. man Saloum. fan ci Saloum. Misra. boo fay dem looy jël. biis. merci. ah te nee na koy def xaarum biis lay jël. <laughs> eh ñëwal ñëwal ñëwal. ayca mi ngi noonu mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee eh taxaw leen mën naa leen may ci bon dibi yi ngeen reeri dibi wala ma may leen ci yére yi sëñ bi noo def. sant rek. yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm. léegi li ma wax dégg nga ko wala ma waxaat ko. dégg naa ko. question réponse lay doon bu ma la laajee danga may bu ma la laajee dangay tontu mu gaaw. waaw d'accord. d'accord naa waaw. boo waxee baatu olof boo wax ñaari yoon perte nga. perte naa euh, doo baatu tubaab boo dugal perte nga. dëgg la. waaw day gaaw day gaaw bu yéexee nga perte d'accord. dëgg la noo def. sant. ça va. sant yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm looy liggéey. man foo dëkk ci Sénégal. Touba. boo fay dem looy moo fay dem. looy jël Njaay laay jël. Njaga Njaay. kii bi quoi. ci rond point bi wala. déedéet ci tali bi. tali tubaab la xam nga loolu. non non du tali tubaab la maa la ko man noonu tali tubaab. ay jël mi ngi doon léegi kan da nga ñëwee ñëwal. ñëwal booy ñëwal. <laughs> yéen ñii wax naan tali du tubaab bàyyi leen wax tali tubaab la jël jëlaat amul. Ahmed Sall Ahmed Sall Ahmed Sall est-ce que doo ma xoolal sama saak def booy. maa ngi si jàmm. li ma wax leer na wala ma waxaat la ko. waaw waxaatal wolof. waaw tubaab boo dugal perte nga. wolof boo wax ñaari yoon perte nga. waaw question réponse la day gaaw. waaw noo def. maa ngi da ngay ah? jàng. ban classe ngay def. man. booy ban euh, juróom-benneel. fooy jàngee. xaadim rasul. fan la nekk. fii jëppal. boo fay dem looy jël. oto oto. <laughs> waaw daa <laughs> jël benn nga. <laughs> benn gars dañuy joué benn jëlee ma sama man mosu eh béy di ay eh, béy di xoolal fii mosuma xam ne. musuma xam ne Saalum Saalum yi dañuy perte noo def. maa ngi fi. li ma wax ma leeralaat ko wala leer na ci yow. waaw leeralaat ko. baatu tubaab boo wax perte nga. waaw bu ma la laajee da ngay tontu nu mu gën a gaawee. waaw te maanaam question réponse. waaw euh, nuñ koy waxee. Euh, après dama stoppaat sa après loolu après après baatu tubaab boo wax perte nga après beneen bi après kii bi après ça va. jàmm rek. yaa ngi si jàmm. maa ngi si ci Saalum. Saalum Arafa. waaw ma fay dem looy jël. ma fay dem lu may jël Ndiaga Ndiaye. foo man fu mu koy jëlee. fan ci Tëngéej ci arekaar wala ci garage. Tëngéej jaar autoroute à péage wala national. Euh, non si goudron bi lay. non lan la non. <laughs> Eh! kay kay. mais kay jee boo kay. kay ma jël laa kay kay boo. gañe ma teral la kaay boo gañe ma may rek <laughs> mais wala maire léegi li ma wax ma xaaral ma leeral la ba mu leer. waaw jàkkaarloo ak boo gañee dama lay may yére teral la. Ah. wala ma may la bon bi nga dem dibiteri la mbote reer yàpp ba suur doo fay dara. waa waaw waaye baatu olof boo wax ñaari yoon perte nga. Ah. baatu français boo dugal perte nga. Ah. Euh, question réponse lay doon. waaw am na benn question pièce bu nekk ci biir boo ko trouvé ma tey yow yére laa lay may. waaw ma dama laa bëgg. maa sigil da ngaa yem. moo def maman. maa ngi ça va ça va. nii rek la war a jaar ci kanamu caméra bi. di. naa yus ñëwal. waaw boo ñëwee naa la expliqué. waaw béy di ba tey waaw di est ce que tey jar na bi. <laughs> waa léegi yow da ngay bëgg a waaw. 100 pour 100 wolof la. waaw incha waa jéem boo gagné ma may la yére wala ma may la bon wala ma may la bon dibiteri boo demee la mbotay reer ba suur yàpp dégg nga. incha allah ndawal ndawal. <laughs> waaye ba kii baatu tubaab boo dugal tam perte na. réponse day gaaw ñu dem. looy def ni yow. jaay. ci loo bëgg a bokk nii. <laughs> ma ñëw sa ah. concours bi laa bëgg a gagné. sa <laughs> ah, waaw. béy di waa ji nee de daa bëgg a bokk ci sa <laughs> naa def. sant alhamdulilah. léegi li ma wax kii leer na say nopp. leer na bu baax. jarul ma ciy bamtuwaat. jaru ko ça va. question réponse la day gaaw d' maa ngi lay déglu. foo dëkk ci Sénégal. Kaolack. li nga takk nii nu mu Gille. ab Gille. lii mooy ab Gille. <laughs> Mbapat ñaata la. Eh, waaw yow boo laay juróom-ñaar. juróom ngay ah. def bàyyi sëy bokk ci de. mais moom moo dem. non non non non juróom-ñaar juróom. Eh, dafa eh, leen ma. dañ ne waa xaaral xaaral ñii di ci dugg lan lañ wax question réponse day gaaw yaa ngi dégg. sa numéro yow yow yow dèjà yow yow wax nga baatu baatu. non man damay wax français yow yaa amul droit wax français. ah ah tamit nag soxna si nag loolu loolu du dem. wuy ma da ngaa bàyyi non bàyyiwuma ko. waaw lan moo la gën a naqari ci réew mi. lu ma gën a naqari si réew mi ah. ñàkk liggéey gi. ñàkk liggéey gi. ah ñàkk liggéey kii waxal nga. non non non même pas lan. non non lan la. naa def. jëlal bi béy di cadré la ma ci sikkimu waaj yow ci sikkim bi garaaw na trop. ma leeralal la. waaw. question réponse la su ma la laajee da ngay tontu nu mu gën a gaawee d'accord. waaw boo gañee ma may la yére wala ma may la bon nga dem dibiteri la mbotel reere ndawal d'accord bëgg naa ko baatu tubaab boo dugal perte nga d'accord bëgg naa ko duñ ah, koy waxee ça va bu wér foo dëkk ci Sénégal Saloum fan ci Saloum euh, Kër Madiabel boo fay dem looy jël ndaamaar foo koy jëlee euh, question réponse la mun leen bàyyi tëngéej fan ci tëngéej. si buntu ba. non dafa am ay arrêt am am am marché am garage am fan ngay jëlee. fi mu daa ndaw yi taxaw. Hmm. looy jaar ci autoroute à péage wala route nationale. si goudron bi. ci goudron bi ngay jaar. Ah. waaw li nga takk ni nu mu tudd. looy lox ni yow. gile gile gile. waaw goudron français la. goudron goudron wolof la goudron la ñuy non guddi rong ah ma ñu loolu ñu wax guddi rong daanaka ma de daanaka. nga ne olof rong. guddi rong. waaw may ma benn léeb gannaaw. waaw man nag léeb man ma ko lool. lan moo la gën a ci réew mi. li ma naqari bari na. lan ak lan. jàng ba pare doo liggéey. Ah, loolu moo métti. loolu la métti. waaw. d'accord kan mooy joué waat naa def. waa lii mbaa jàmm la. ayca léegi béy di ñeene di jaay fee ne damaa bëgg jël leen léegi damay jël kenn nit naa def. sant yàlla. 100 pour cent wolof la dégg nga. dégg naa baatu tubaab boo dugal perte nga. nangu naa ñaar baatu wolof boo wax ñaari yoon perte nga. nangu naa question la day gaaw. nangu naa boo gañee ma teral la may la bon nga dem dibi dibitëri la mbota reer yi. loolu ne ma may la yëri. incha naa def. maa ngi fi ça sant yàlla. sa numéro téléphone la. juróom-ñett juróom-ñaar. juróom-ñett juróom-ñett bu commencé huit daa am. <laughs> ma laaj daa métti na yow juróom-ñett rek laa wax li ma laaj daa métti yow tamit numéro. nga ne lu la laaj. li ma laaj daa métti. sama numéro. <laughs> <laughs> nee na laa ko laaj numéro tubaab la. Ah, waaw. d'accord léegi waaw ça va sant rek. yaa ngi si jàmm. mu ngi sant bu baax ci Sénégal. Pikine. boo fay dem looy jël. Ndaamaar. foo koy jëlee. ci gox bi. ban gox. fii nii. ci ah. tali bi ci tali bi. <laughs> Ah. yow yaa remaré. waaw nga dee woon la question réponse ah, day gaaw. ah fii laa jëlee oto. fii nga jëlee oto. looy liggéey. damay wanteer. ah nga. jànguma. jàngoo. non déet. Ah, lan moo la gën a neex ci li Ablaye Wade tabax fii. li ma ci neex bari na. wax ñu benn. benn bi ci nekk mooy stade bi. stade lan la wolof la wala tubaab. stade. <laughs> sant bu baax baatu wolof boo tubaab boo wax rek perte nga d'accord. Ah, wolof boo wax ñaari yoon tamit perte nga d'accord. am question pièce bu nekk ci biir boo trouvé. ma may la wala ma may la bi nga dem débiteri la mbotel lekk yàpp ba suur doo fay dara. waaye doo wax tubaab de d'accord. noo def. jàkkaarloo ak ñi ça va. sant bu baax. sa numéro téléphone lan la. 76 648 76 648. réponse la day gaaw baatu wolof boo répété ñaari yoon perte nga boo gagné ma may la yëre wala ma may la dibi euh, bon nga dem dibiteri ba réer ok noo def ça ah. maa ngi fi nga. waaw bu baax. waaw classe nga bàyyee. <laughs> grand li ma wax kii leer na sa nopp. wala ma baamtuwaat ko. xam nga. mu tëddee. waaw d'accord noo def. maa ngi nii ça va. nice lépp jàmm. nice lan la. ah ay léegi nice tubaab la wala. non non laaj ko ma. anglais. waaw. jàng nga. waaw jàngu ma. foo dëkk ci Sénégal. Touba. boo fay dem looy jël. nee na bis lay jël bu ñu. lu ma gën a naqari kuréel. mais daal mais ah kay bàyyi ma continuer rek. doon na perte nga yàgg na dama lay laaj rek la naka. kay bu ma bu ma rey ci air bi xarit sama biir bii nii li koy doxal xamoo ko xanaa. ko wax leneen lu dul lool numéro rek laa si xam. waaw léegi mais numéro tubaab la. numéro tubaab la ah. léegi nan la ko waxee si wolof. ma may ko sens mais kii su ma ko mayee sens day yomb. <laughs> ñu demaat. ñu dem. noo def. sant yàlla. ça va. maa ngi si jàmm. ban classe nga bàyyee. jànguma français. jànguma français. jànguma lu tax. alxuraan laa jàng. alxuraan nga jàng looy liggéey. damay jaay. looy jaay. kawas laa kawas. mais kawas tubaab la. suset <laughs> mooy France. lan mooy. nga mooy kawas wolof la. kawas lan mooy France. bu ma ko wax bu ma ko waxee perte. non wax nga ko léegi. bu ma ko waxee perte waaw bokkul. non yow sama la wax. Ah, suñu géej. Ah, ah, léegi grand léegi dama lay wax dernier. maa ngi dégg. d'accord léegi su ma la mayee bon bi foo koy dugal. fan mooy question réponse question pièce bi naa la ko amoon na question pièce boo ko trouvé ma may la bon d'accord bu ma la mayee euh, kii bi euh, bon bi foo koy dugal. fan laa koy dugal. pour la. pour nga dem dibiteri la mbote. reer ba suur doo fay dara. waaw fi laa koy dem koy denc. gise gi gise gi. gise gi gise gise. gise gi gise tubaab la non non gise. gise gi sokos kay moo ah? ah. perte émission bi 100 pour cent wolof la. waaw baatu tubaab boo wax da ngay perte. waaw baatu wolof boo wax ñaari yoon perte nga. waaw question réponse la su ma la laajee da ngay tontu mu gaaw. waaw am na benn question PS boo trouvé ma may la yëre bi xam nga man ak ni niroo dama bëgg nga gagné d'accord. waaw noo def. maa ngi ça va. ça va. wuy <laughs> ma émission bi xam nga lan la 100 pour cent wolof boo waxee baatu tubaab da ngay perte. Ah. baatu wolof boo wax ñaari yoon da ngay perte. Mm. question réponse la su ma la laajee da ngay tontu mu gaaw am na benn question pièce boo trouvé yow dama lay may yére may la bon nga dem dibiteri ba lekk yàpp dégg nga lekk ndawal d'accord. d'accord waaw. waaye xoolal d'accord ak kii ok ñu dem. noo def. maa ngi fi ça va. ça va bien. noonu mbokk yi tax na lii lañ leen indiloon tey kenn gañewul <laughs> tey kenn gañewul bon kenn gañewul yére di leen fàttali rek ne ndindi couture lañ àndaloon <laughs> béy di moo maye yére yi. ba tey dibiteri Lembaté lañ àndaloon moo may booy di leen jox dig daje beneen émission rek euh, keneen ku may àndal euh, di ko jaajëfal lu bëree moom béy di sama caméraman bu ñaawul bi. waxoo woon sànq waaw nga bàyyi ba may tàggatoo nga ñëw na waa kaay waa kaay wax maa ngi lu ngeen di ma bañ wax olof. waaw wuy ma déglu rek. question réponse la yaa ngi dégg ma la tontu bu ma la laajee danga may tontu ci ni mu gën a gaawee. waaw baatu tubaab boo wax perte nga. waaw baatu olof boo wax ñaari yoon perte nga. dëgg la am na question PS boo trouvé ci biir ba ma may la yëre wala bon nga dem débiteur la mbata reer yi. dëgg la ok ñu dem. ok ça va. na nga def. ma ne ça va. ça va bien. Ah, di leen jox dig daje xam naa ne beneen émission lay doon. Ah, feneen fu may daal di doxantu rek ci biir réew mi ñu xool 100 pour cent wolof bi tey nag question PS bi ñu ko wax comme kenn jotu faa yegg dañ koy bàyyi ba beneen émission joy di sama caméraman bi sama njool mu ndaw mi maa ngi lay bëggee waaye <laughs> jërë ngeen jëf